Mamadou Diouf fils de Aline Seye xale yaa ngi lewaatoo Mamadou Diouf door na Mamadou Diouf numéro 2 mooy woon ginnaaw fils de Aline Seye dooraat na ko wala boog Mamadou Diouf dooraat na Aline Seye fils de Aline Seye fils de Aline Seye Mamadou Diouf eh Mamadou Diouf daw na jël ko jël ba sooy na fils de Aline Seye eh Ama Dia bi mooy drapeau jaaykat yi plaqué na ko Mamadou Diouf Mamadou Diouf dafa bëgg a jeexal làmb ji Mamadou Diouf fils d'Aline Seye xeex nañu jël nañ lay daan dañu lay daan fils d'Aline Seye fils daan na ko Mamadou Diouf bu ITV daanu na Mamadou Diouf bu ITV daanu na Mamadou Diouf Mamadou Diouf daanu na arène bu ne nga jël ko fii.